sëriñ nit ku baax la ku xam social la ndax man nit ñi dañ may sollicité ci ay soxla yu bëree bëree bëri bëri mais lu ci bëri rek su ma demee ba war koo régler rek ma dégg na sëriñ bu jaar na fa régler na ko te du xam sax ne man yëg naa ko te dama naa cee rek teewal benn soxla bu ndaw boo xam ne su ma jarbaat man mii la ndax yaayam maa moom ñoo bokk ndey ak baay loolu mosuma koo wax kenn mais tey ji danaa ko wax parce que dafa ñëw ba sii mu toog suma kër yaay baay ñoo bokk ndey ak baay sama rakk di jabari Omar Diop sëtam doomi Ahmadou Toomam feebar na ñu yóbbu ko Dakar defal ko bilan dégg di ko laaj deux million cinq cent mille xale bu amul sa six mois bu def ak opération dégg nga moom sëriñ mi ba xale bi defee effort ba jot sëriñ sëriñ ne ko demal ci hôpital lépp lu mu laaj wax ma ko man keroog chèque def fay ko ba mu ko fayee tamit xamul na sax kii bokk na ak man xamu ko yàlla rek a taxoon mu def ko dégg nga ba ma ko yegee wax ko ko tamit dafa ne ma yàlla xam ne na xaw moon na sax sama waa gën naa cee kontaan ndax li mu nekk sa jarbar sa sët dégg nga yooyu jëf la yoo xamante ne def na ko rek te yàlla rek moo tax ñaareel bi am na xale bu feebaroon fii ci Medina mbaaba gii fukki at ñett ñu tëdd ci lal dégg nga xale bu jigéen bu ndaw éco arabe gi la nekkoon fa ko feebar bi dalee jamono boobu sëñ yi mii mooy xali mooy mooy euh, directeur euh, école bi demoon na sax seeti ko xale bi mu demee ba sonn sama benn xale mi ngi fii ci mbooloo mi Pape Ndaw moo ñëw ne ma xale bii dafa laaj assistance treize ans yaayam moo koy yëkkatee ko tëral di ko sang te xale bu tuuti la dundam baa ngi bëgg a yàqu dégg nga te gis naa ngay def ay sociale di dimbale nit nii dégg nga bëgg naa kooku nga bàyyi ko xel keroog ba ma ko waxee. ma téléphoné Alfayda wax ko Babacar ne ko dama bëggoon nga defal ko ket ci rajo bi dégg nga ñu dimbale ko parce que dafa war a faju te amul doole dégg nga yaakaar naa bañ koy def dégg nga sëriñ mii man maa ko oo téléphone directement jot ko ne ko kii dafa laaj ndimbal ba ma ko waxee immédiatement la oo conseiller mu yónnee xaalis dégg nga ma jël ko jox ko ndaw jox ko jox ko yaayu ndaw si dégg nga gannaaw loolu dégg nga xale bi ma dem man tante chance dem seeti xalifa bi ne ko nag kii dafa laaj ndimbal ma bëggoon nga may ma lettre ma envoyé ko le di du Maroc pour Maroc jël ko en charge sëriñ bi boole ma ak secrétaire mu defal ma lettre ma jël lettre bi jox ko paam Ndaw mii nekko ko demal Dakar nga déposé ko ambassade ma ngi sant di gërëm di ñaanal mbooloo mi fi ñëw yëpp kenn ku nekk yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko yàlla defal la fi réew mii nga bëgg yàlla mooy joxe réew yàlla moo koy jox ku ko yow sañ ngaa bëgg te yàlla dina defal ndam yow mosoo bëgg dara joto jotoo ci ba nga fi Kaolack jot nga ko ba nga fi euh, euh, cœur de ville jot nga ko ba nga fi chambre de commerce jot nga ko yaa ngi ànd ak ndimbali yàlla yàlla nga dëkk di ànd ak ndimbali yàlla yàlla mooy dimbali yàlla la dimbali ñu ngi sant di la gërëm di la gën a dénk dëkk bi dëkk bi sa dëkk la keroog bi ñu la waxee naa bi ma déggee waxi caaxaan yooyu dama oo ba nga ñëw may la bu subaa nga julli si àjjuma te da jaar sama kër ma ak nag te sëñ maax yi mi gërëm na la sama barke démb rek bi nga fa demee li mu wax ci li mu wax ñëpp dégg nañ ko. dégg nga ku la fonk la ku la bëgg la. ngi lay gërëm une fois encore ci hôpital centre santé Cheikh Ahmad Daam Ibrahima Niass bu bees bii. ñun dañ daan am problème toujours suñ doom bu juddu ñu dem mairie danañ ay kayitu juddu bi andi ñu état civil. dañ ko war di wax nit ñi xam ko. yaay premier maire ci Kaolack bu njëkk a état civil fii maire bàyyi dégg nga. nga indi ko fii ku ku judd rek ñu jox la sa papier nga dem amut coono amut dara nga informatiser def ci li ci war yëpp. ñu ngi lay ñaan rek dégg nga ñu ngi fiy indi ñu fiy liggéey nañ nekk ñoo xamante ñu xam dëkk bi lañ ñu am yar am ak taalibe parce que dëkk bi tamit dafa am lu ko lu tëddee dégg nga am na noo xam ne boo fi bëggee ñëw parce que bëgg a doxalee neneen neneen da bëgg a am couleur dafay indi ay complication mais koo fii indi na nekk taalibe ak fu mu mën a bokk na nekk taalibe rek te taalibe moom boo ko see nekkee doo am benn problème ñu ngi sant di gërëm di la ñaanal yàlla ba yàlla defal la jàmm ak tawfiq di la wax ne sa kër la amul amoo fi heure amoo fi guddi amoo fi bëccëg heure bu la neexee fëggal dugg sa kër maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal baax nomination bi kontaan nañ ci trop parce que li nga ma nommé nii fekk na fanweeri at maa ci médiation ak defar rek ci laay nekk heure bu nekk procureur xam na ko magistrature bi xam nañ ko euh, tribunal bi xam nañ ñëpp xam nañ ko gouverneur xam na ko daaw rek yoon ministre de l'intérieur recevoir maak Cheikh mii toog nii dégg nga ci problème yi doon am fii ci dëkk ma ne wax ak moom pour mu ji régler ko daf na ma señ As yow ñun amuñ sa fay yow dañu laa war a dagal salaire ndax médiation bi ngay def Kaolack gouverneur Aliou Badara Menga wax na ma ko ñu bëri wax nañ ma ko te président Macky Sall wax na ma ne ma ñëw nit ñi dañu laa war a xam parce que da ngay taxaw askan wi ci Kaolack di leen dimbale te amoo ci salaire amoo ci dara te kooku dégg na nekk na ci problème doo am jàmm fekk amul jàmm dégg kon nag loolu da nga fekk ma nekk ci loolu nga delloo ñëw delloo siyaat loolu nommé ma loolu conseil spécial pour loolu ñu ngi lay sant la gërëm di la ñaan yàlla nga jot ci réew mi ba def ma conseil spécial. yàlla